emploi am sax euh, da leen di taxawu ci ci fànn wu nekk on se rappelle euh, ki nga xam ne moo di mam Birame Wathie da daan nekk ci côté à tout moment mm-hmm. na bonjour ziar naa la léegi-léegi <laughs> laay <laughs> xool sa sa kii parce que ma bëggoon envoyé message WhatsApp je vu que sa photo profil bi nga xam ne ni yow ak Sid Lamine et photo bu yàgg la de ça date pas d'aujourd'hui ça m'a beaucoup de parce que boobu man fekk na ma Walfadjri mm. ma ne ah là quand on parle de de de de jegeñaale ay employé ci ci ci ci njiit ci njiit dañuy jël tamit exemple Mame Birame Wathie Limina bonjour namu naa la. <laughs> ma raw soxna Aïcha di la nuyu di mm-hmm. nuyu Oustaz Assane mi ma fekk Mélanie ak Xooxaan mm-hmm. di nuyu sénégalais gambien yëpp yi ñuy seetaan mm-hmm. instant yi. donc comme nu nga ko waxee journée wu 4 décembre moom fi mu toll nii yaakaar naa ne. euh, c'est une euh, date particulière, particulière. Euh, puisque euh, Sénégal euh, tey bu ñuy compter bés yi nga xamante ne ni marqué na Sénégalais yi yaakaar naa ne 4 décembre du ci génn te dara waralu ko nag lu dul œuvre bi nga xamante ne nii Sidi Lamine Niass bàyyi na ko fii dimension bi nga xamante ne nii amoon na ko te oustaz maa ngi koy déglu léegi mu wax ci lu am am solo. Mhm. alors mais mais mais taxawaay bi tey maam Birame Wathie bu ñu ko doon wax di di di comparer bu fi Sidy Lamine nekkoon ak tey ni mu fi absenté nii ak ni ñuy waxee ci wàllu démocratie ni ñuy waxee ci wàllu taxawaayu nguur ni ñuy waxee peut-être ci côté intimidation est-ce que dina woon am. non non yaakaar yaa yaakaaruma ko yaakaar naa ne xam nga dañuy wax incompatibilité. yaakaar naa ne Sidy il est incompatible ak euh, li nga xamante ni mu ngi xew fii au Sénégal Euh, puisque maa ngi dégg léegi Oussa Assane mu koy wax demoon na ba wootee manifestation 19 mars. Mhm. ñu bëri jàpp ne sax 19 euh, mars boobu moo gën a dëgëral opposition bi. Mhm. moo leen gën a yokku fit ba nga xamante ne nii li xew 23 juin li topp yëpp daal di euh, mën a am. Mhm. te soo seetloo Sénégal nu muy doxee nii c'est pire que. li daan xew ba taxoon sii di ne day woote 19 euh, mars donc <laughs> kon ñëpp mun nañu comprendre que ne su ko fi fekkoon tey dina ci am taxawaay boo xamante ne nii non seulement sénégalais yi dinañ ci gis seen bopp mais également nguur gi dina comprendre que ne nekkul kilifa diine yëpp parce que tamit sii di souvent bu ñuy wax dañuy mettre en avant homme de presse bi wone ki nga xamante ni mooy fondateur euh, groupe de presse bu tudd mm. Walfadjri mm. mais sii di avant tout d'abord kilifa diine la jóge ci euh, euh, euh, famille boo xamante ni Sénégal kenn dootu ko présenté mu munoon quelque part tamit doylu ci loolu toog comme ni ñu koy waxee souvent yor kurusam ak sijaadaam mhm. di encaisser addiya comme nu bëri nuñ koy defee mais mu ne non seulement askan wi nga xamante ni mooy askanu Sénégal dina leen xeexal lu mel ni euh, groupe de presse nga xamante ni tey ci Sénégal gi yëpp képp koo xamante ni am nga lu la naqari sa xel ci li muy njëkk a dem. Mhm. mooy sunu problème yi kat Sénégal war nañ ko yëg. Mhm. te Sénégal naka lañ ko mën a yëgee mooy nañu dem wax ko Walfadjri mhm. donc euh, mu nekk euh, loo xamante ne nii man dama jàpp ne ñun sénégalais yi suñ ci bàyyi xel li ñuy mën a wax rek mooy merci Sidi merci Sidi parce que wax dëgg yàlla defal na. askanam defal na Sénégal ba loolu tax na tey 4 eh, décembre bokk ci date yi nga xamante ni kenn dootu ko mhm. yi ngay gis nii sa sa sa ginnaaw euh, njiitu réew Macky toog ci plateau Walfadjri Euh, defe naa le 22 la woon le 22 juin le 22 juin le 22 juin. 2000 hmm. euh, 2011. Hmm. Euh, image yi boo ko dee seetaan ak ce qui se passe dans ce pays lan lay jox Serigne bu ñu mënee illustrer image bi rek. voilà waaw xam nga su mooy sax souvent critiques yi nga xamante ne ni dañuy dégg muy jóge ci ñi ngànk nguur gi euh, jëmale ko ci ñun ñi nga xamante ne ni ñoo fi nekk euh, jàpp que ne euh, dañuy par parloo wala ñenn ñi sax di dem ba ñuy woowee ay opposants man mii souvent ñu mu naan ma mam biram passif mm. donc ñuy considérer que quelque part Walf dafa wàcc parce que mu ngi jox boppam mu ngi jox bopp opposition bi ñuy fàtte ne euh, opposition bi boo ne askan wi mm-hmm. ne askan wi kat li mu waroon a am defaluñ ko ko askan wi waroon na weesu fii bu yàgg boo xoolee ressource yi nga xamante ni Sénégal am na ko te waratuñu woon a toog ba naan soxna si kat mu ngi wasin te pourtant balaa moo dem ci euh, fi nga xamante ni mooy centre de santé bi mu fa mu war a wasine il faut mu tegu ci kaw saret mm-hmm. donc jafe-jafe euh, Euh, yu mel noonu euh, nit bu toogee ba jàpp ne kat lii nii wax dëgg yàlla war na mën a changer Sénégal tey war na bokk ci dëkk yi nga xamante nii yi war a euh, seen population war a ëpp épanouissement la bokk mhm. puisque am nañu recherche yooyu mu jàpp que ne quelque part li tax mu mënuñu ko am mooy que njiit yi nga xamante nii ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo deful pour que Sénégal daal di yegg foofu. Mm. donc bu boobaa da ngay considérer que ne kii di wax ni kat askan wi lay waxal parce que askan wi li ñu ko waroon a jox joxuñu ko te bu boobaa ki waroon a joxal ki waroon a jox askan wi du kenn ku dul ki nekk ci pouvoir bi léegi yow soo ne yow yaa waroon a jox askan wi te joxu ko. Mm-hmm. nit ñi considérer que ne yow opposant nga. Mm. alors que ñoom ñi nga xamante ni ñoo koy wax. Mm. président Macky Sall bu mu tollee en 2011 2012 euh, di wut nguur gi. dafa ñëwoon far ci askan wi. dafa mhm. jóge ci pouvoir bi daal di ñëw ci opposition bi di wax ne askan wi li ñu ko waroon a jox joxuñu ko ko. Mhm. loolu moo tax <laughs> bu ñu relayé kàddu googu ñenn ñi jàppoon ne Walfadjri kat dafa nekk di faral Macky Sall. Mhm. alors que tel n'était pas le cas dafa ñëw. fekk euh, Walfadjri ci xeex pour askan wi mu bokk ci xeex boobu ñu àndaale ak moom te soo seetloo tey jii ni c'est daanaka la même chose kon mën nañ jàpp ne tey soo ko dafa taxaw taxawaayu Macky Euh, daanaka puisque euh, quelque part lii Macky Sall daan kaas parce que lim daan kaas nekkul le nekkul euh, comment dire waroon naa am poste bi joxuñu ma ko. Mm. bëgg naa nekk président Sénégal ñu ma koy xañ moom lim daan xeex mooy que Sénégal. Euh, comment dire démocratie bi doxul mm-hmm. Abdoulaye Wade amul droit ne day def troisième mandat <laughs> donc yu bëri yoo xamante nii daf ko doon kaas askan wi gisoon ci boppam tey jooju loolu la opposition bii di kaas askan yu bëri gis ci seen bopp fa Walfadjri nekk seen wet ça ne veut pas dire que ne dañ ko personnaliser maanaam dañu ne diw la non non non kenn personnalisé ko dañu ne. Mm-hmm. askanu Sénégal la. Mm-hmm. te yaakaar naa ne boo nekkee ci askanu Sénégal souvent ki ngay gën a dendal mooy. opposition. xooxan waaw dama ko bëggoon laaj rek bu fekkonte ne tey eh, El de Sidi Lamine mu ngi doon dund. Mhm. Eh, te ñu gis ne moom eh, bi muy dund daf doon porter ay combat lu ci mel ni bu ñu laalee démocratie Sénégal est-ce que kon jàppuloo ne ay génnam dina faral di bëri jamono ji la ñu nekk. <laughs> waaw bu doon jamono ji la. comparé à niñ démocratie doon doxee ba tax muy génne. ak li nga xamante ni mooy euh, taxawaayu démocratie. Euh, ci Sénégal tolluwaay bi en quelque sorte. waaw euh, waaw tout à fait xam nga maa ngi naan la. sànq ngi naan la sànq 19 mars lii xewoon. ba taxoon la Lamine ne day manifester foo xamante ni ba fa sénégalais yi gëjee manifester taawu wal joojo njaay la dans les années cinquante 60. place de l'indépendance donc bu demee ba jël responsabilité am ne day woo askan wi ci place de l'indépendance c'est parce que gis na ne Sénégal gii kat nu muy doxee waratu koo doxee mm-hmm. te yaakaar naa ne boo comparé li xewoon jamono jooju ak li xew jamono ji mais yàlla yàlla la li xew tey jii nii moo gën a garaawati encore donc mun nañoo xalaat ne comme que lu ndaw xewoon na du ñu wax nag lu ndaw sax mais buñ koy xëy na euh, estimer en terme de gravité en terme de pourcentage dañ naan cent de gravité tey da ngay jàpp ne mu ngi à quatre-vingt-dix pour cent de gravité te mënuloo xalaat ne xëy na kat moom mu ngi doon cas euh, en euh, de mars deux mille dix-neuf loo xamante ne nii euh, mooy ni nguur gi di doxee te muy sooxe nga xalaat ne ci diggante bi kat changement am na xëy na ñi fi nekk nii dinañu am ak moom relation yoo xamante ni dina tax xeex bu mu doon xeex dem ak bërki dem mu bàyyi ko ba nekk seen wet boobu ngay jàpp ne loolu mënul nekk parce que Sidi Lamine xeexul pour pouvoir souvent da doon wax ne te sax ñii nekk ci au pouvoir bi xamal nañ ko seen bopp reconnaître nañ ko seen bopp au delà de la presse bi nga xamante ni Walfadjri da ko daan ubbil président Macky muy ñëw di def ay discours. Mm. Euh, oustaz mu ngi koy wane léegi ci ay diine ak jamono ak leneen ak leneen moom ak Sidi Lamine Niass am na loo xamante ni seq nañ ko. Mm-hmm. te beaucoup de membre de la l'APR xamuñu ko mu nekk diggante boo xamante ni kuy gis ne kii kat. mu ngi xeexal euh, mu ngi mu ngi ne day xeexal Sénégal mm-hmm. mu ngi ne fa mu nekkoon dafa jóge parce que dañ ko fa doon néewal doole Sidy Lamine jàpp ne ku ñuy néewal doole koo xamante ne bëgg askanam rek moo tax ñu koy teg loo xamante ni du du du noonu mm-hmm. dina ko jàppale mais mënul woon xalaat ne ci diggante bi président Macky dina agsi au pouvoir jéem a ne ko comme que jàppale nga ma kat te wax naa sànq ne du moom la jàppale en quelque sorte mais peuple Sénégal ci xeexam la nekkoon Macky Sall fekk si ko si. Mhm. mais mu considéré que ne moom la euh, doon jàppale agsi au pouvoir ne ko comme da nga ma daan jàppale ba ma agsi au pouvoir léegi kat dama bëggoon ni nga doon def yëpp nga bàyyi ko nga def Walfadjri benn genre RTS ñu daal di ànd. loolu kenn mënu ko woon envisager. te tamit noonu la demee ci Abdoulaye Wade bu mu demee ñi ñu doon xalaat ne. bi Abdou Diouf demee du moins ñii ñi xalaat ne euh, euh, Sidy Lamine Niass xëy na moom ak Abdoulaye Wade dinañu jegante boo xoolee sax plaque bu nekk fii ci ci ci buntu Walfadjri mm. ñu ngi bind inauguré par le ministre euh, euh, euh, nu mu tuddati kala dëkk sa Kédougou. Ah, Moustapha Guirassy. Moustapha Moustapha Guirassy nekkoon ministre nekkoon ministre Abdoulaye Wade moom moo ñëw inauguré bâtiment bi mënoon nga xalaat ne ministre boo xamante ni moo ñëw inauguré bâtiment de quatre étages xëy na kat. ki moom étage yooyu ak nguur gi dina am quelque part benn euh, comment dire benn complicité wala benn àndandoo mais on a vu que bi ñu demee ba ñu naan troisième mandat du fi am Sidi Lamine Niass bokkoon na ci sénégalais yi nga xamante ni seen taxawaay moo gënoon a fës daanaka. est-ce que jàppoon ne aussi euh, tolluwaayu démocratie moom moo taxoon xëy na euh, Sidi Lamine moon a amal manifestation comme ni mu ko amalee ni ci place de de l'indépendance ndax tey jile jàpp naa ne ku fa bëggoon organiser manifestation mbir yi. yi boo wàccul ay lacrymogène moo koy waaw c'était daanaka les mêmes risques ah parce que Sidi Lamine jékki-jékkiwul mu ne day euh, comment dañuy bëgg dañuy manifester fële ca place de l'indépendance nguur gi ne ko kaay ñu defal tapis rouge mhm. demeewuloon noonu ba mu ne day manifester foofu tamit nguur gi comme nu ñuy taxawee tey jii nii ne manifestation du fa am ci taxawaay boobu la ñu nekkoon mais kañ dafa fekk ni Sidi Lamine Niass nekkul koo xamante ni dañ koy xoqatal mhm. dès l'instant jàpp na ne constitution bi moo ko permettre moom mu manifester euh, place de l'indépendance te sax da nga daan dégg souvent ñun ñi daan euh, ñu ñu ko daan jege da nga daan dégg mu naan la dañu war dem ba banaliser manifestation yi nga xamante ni ñooy xew fële parce que tey jii nii boo demee aux États-Unis mhm. mais nit ñi dañuy manifester devant la Maison Blanche soo demee France nit ñi dañuy manifester devant l'Élysée te Sénégal tey bu ñuy tëkkale démocratie am duñ ko tëkkalee Gambie ko tëkkale ak Mauritanie ki ñu koy tëkkaleel mooy France ak États-Unis di les grandes démocraties donc ci grande démocratie yooyu bu ñu permettre seen citoyens yi ñu manifester ba ci yenn endroit yi mën nga jàpp ne moom ci considération dina jàpp ne place euh, de la nation kat war nañu fa euh, dëggal fa place war nañu fa manifester décision manifester wallaahi azim pression bu nekk teg nañ ko ci kawam. Mhm. lu ne wax nañ ko kilifa diine yi politique yi ku ne mais si Lamine jàpp ne. comme que kat Sénégal fii muy toll fii muy ni muy doxee nii Sénégal yu yu gën a bëri boog jàpp nañu ne. Mhm. bu doxin bu normal il faut que ñu manifester wane ne nii dëkk bi di doxee. Mhm. ànduñu ji yaakaar naa ne tey bu bu doon tey tamit <laughs> euh, force de l'ordre yi ñu bëri euh, pression bi dina bëri mais lu tere si di ne day manifester fële te lu ko ci fekk. mais est-ce que kon euh, le peuple n'est pas bu fekkente ne malgré risque yooyu. Mhm. jëloon na ko ngir mën a amal manifestation léegi da gis ne ñu bëri bu ñu ñu wootee pour amal ay manifestation il suffit benn euh, benn kii préfet rek ñu daal di banque seeni loxo est-ce que kon jàppoo ne xëy na askan wi manqué na ñu doon taxaw taxawaay bi nga xam ne xëy na sii di amoon na ko jamono jooju <laughs> waaw xam nga euh, euh, nga am benn engagement bi ba pare boole ci désintéressement maanaam yaa ngi engagé wu xam nga ne ay risque mën na la ci fekk mm-hmm. te xaaruloo si dara te souvent loolu la ñuy gis ne sunu acteur politique yi amu ci souvent acte bu ñu posé rek ñu ngi xaar en leneen. Mm-hmm. ce qui euh, n'est le cas de Sidy Lamine moom wax naa la ko sànq dina la gunge ba nga yegg buntu pare mu dëpp ñëw yéegaat euh, euh, Walfadjri donc amul en retour lenn loo xamante ni. mu ngi koy mu ngi ko ciy xaar ce qui fait kooku nga xamante ni day man day dafa engagé wu te xaarul dara ci ginnaaw non seulement mën na jël risque bu nekk. mais également tamit xeexam du du du la ne dama koy yemale fii wala dama koy yemale fële donc mun nañu considérer que tey sénégalais yi orphelin lañ te loolu ñu ngi ko nekk depuis le 4 décembre euh, bii passé nga xam 2018 nga xamante ne nii euh, toog nañu ba euh, nii mardi ñu ne ñu Sidi Lamine génn na mu mel ni quelque part dafa am lu benn fardo rek boo jël teg ko ci kaw sénégalais yi parce mm. que am na kenn ku leen ko daan yenul te kooku nekkatu fi il fallait que ñoom ñu yenu ko mm. gis nga ne fi ne nii attanuñu ko ñu ngi wone ne euh, nguur gi mu ngi ñuy not daanaka manifestation amatul Sénégal alors que loolu yëpp tey jii ni jàppoon nañu ne euh, ñi ñu ñi ñu jiitu nekk suñuy ancien nga jiital Sidi Lamine xeexoon nañ pour que ñu bañ fi agsi mhm. alors euh, euh, tey oustaz euh, mënuñoo wax également ci bëccëg bi te duñu wax ce qui va se passer peut-être ci kanam ak jàmm ci mi-journée bi mhm. di rek cérémonie de dédicace bi nga xamante ni mhm. jagleel nañu ko livre bi nga xam ne moom moo nekk dernière œuvre bi nga xam ne ni El Hadj Sidi Lamine Niass sëggoon na ci laata moo génn àdduna Walf édition décidé daal di koy jukki ngir fësal ko askan bi ñëpp daj ci muy li nga xam ne moom moo di l'apocalypse salvatrice. Mm. Euh, mu doon nag ñaari mots yu nga xamante ne nii bu ñu ko dee méngalee. c'est un peu contradictoire <laughs> mais quand même am na ci benn connotation boo xam ne mën nañu ko cee xaar. waaw dinaa ñëw ci loolu mais damay euh, def parenthèse feeru Mame Birame. oui ci euh, Sidi. maanaam mën naa wax ne 19 mars moo jur 23 juin. 23 mm. juin moo jur pouvoir bi fi nekk. léegi nag. baromètre bi nga xam ne nag loolu tax na baromètre bi nga xam ne moom la ñu nattee démocratie ci ci ci Sénégal ak liberté jaratul xool nan la mooy ne manifestation yi jóge na ci mbedd mi ñëw ci place de l'obélisque ñëw ci place de l'indépendance la ca des mooy buntu palais pacifiquement bu nga xam ne dañuy def correctement message bi àggate dara du xew mm-hmm. fekk àgguñu foofu rek ñoo xam ne dañoo xam ne daal reculer nañu wala avancé nañu effectivement euh, bu ko defee ñu ñëw ci euh, bés bi mm-hmm. bésu tey bi nga xam ne mooy cinquième anniversaire bi Euh, dañ ko diviser en deux parties mhm. première partie bi mooy euh, li ko dalee ci kanam tuuti rek ay euh, dix heures dina am programme bu déroulé fii ci suuf ñu feggoo ci ak fans club bi mhm. ci la ñuy def seen ñaan yi seen jàng alxuraan yi ki mel noonu ndax mhm. loolu ci la bokk waaw bu ñu demee ba ay onze heures et demi jëm midi moins oustaz Ali dina leen defal waxtaan programme boobu mooy dem ba treize heures mu jeex bu ñu demee nag ba ba quinze heures dinañ leen proposer benn documentaire mhm. film documentaire boo xam ne ci Sidi la ak euh, euh, Palestine bi ñuy wax tey mhm. ci euh, seede bi nga xam ne itam nit ñi sedd nañ ko si Sidi diggante boobu incha allah dinañ leen indil ay documentaire yoo xam ne ci cadre boobu la bu demee ba 16 heures tey mhm. ci la ñuy def cérémonie boobu di cérémonie de dédicace bu apocalypse salvatrice mhm. euh, nga ne dafa am contradiction noonu la mhm. siidi yëf yëfam yëpp noonu la xam nga doxandeem ci biir këram àdduna bu tukki bu ànd ak texe voilà parce que boo seetee par exemple livre ba ko jiitu woon di on mhm. euh, étranger parmi doxandeem ci biir këram xam nga dafa mel dafa am contradiction euh, doxandeem bi pare nga gan ci biir këram par exemple loolu la ñuy wax oxymore voilà nga xam ne toujours <laughs> euh, Sidi dafay boole ñaari contradiction ku bëggoon contradiction la dafay boole ñaari contradiction ba pour synthétiser ko loo xam ne moo war a nekk mm. waaw dafa daan wax thèse euh, antithèse mm. hypothèse mm. yooyu yooyu logique boobu lay lay lay bindee li nga xam ne bind na ko mm-hmm. moo tax livre bii nga xam ne ñu ngi koy génnee nii moom mu ngi ko bind te génnewu daf ko bind jotu ko woon génnee ndekete yoo Euh, livre bi heure bi mu war a génn la doon la doon xaar. Hmm. parce que euh, dañu ajoo ci Sénégal orientation idéologique parce que bu idéologie paanee euh, li ci des dafay paan hmm. stratégie dafay paan hmm. culture dafay paan civilisation day paan mu mel ne livre bi dafa ñëw pour jagal li nga xam ne mooy idéologie mu tontu ci ay antinton ak yu mel noonu ñi daan wax ne bu ñu demee ba ba vingt et siècle àdduna bi dina nekk wala bañ a nekk Sidi di leen wan ne àddina bi dina nekk te li mu mën a nekkee mooy yoon bi loolu moo moo moo moo moo moo undu livre bi. Mhm. xam nga Sidi dafa bind yoo xam ne euh, génnagul. Mhm. Sidi livre bi mu njëkk a bind ci ni mu koy nettalee mooy l' état islamique. Mhm. te bi mu koy bind fekk mu ngi ci biir kaso bi. mais yëf yi daal dafa dem dem ba ñu ne réer naak yu mel noonu boobu itam jar na gëstu ba xool euh, fan la nekk mhm. pour euh, ñu seet exactement lan euh, lan la ci wax mhm. mu nar a nekk lu am solo kon bi Cheikh génnee ni am idée génnee ko ci moment bi mhm. jàpp naa ni mel ñëw na ci ci moment bu baax a baax kon programme bi noonu lay tëddee à partir de 16 heures war nañu fi nag ay kilifa yu bare bare kilifay aada kilifay diine Euh, ñu ciy woo itam askan wi kemtalaayu euh, accueil bi nga xam ne mën na fee nekk. Mm-hmm. Euh, bu ko defee rek incha allah diggante 16h ba 18h la ñuy def programme boobu. Mm-hmm. lépp li ci jublu nag mooy ndono bi fi Sidi bàyyi woon ñu wan leen rek moom moo continuer mm-hmm. mooy chaîne bi rajo bi groupe bi groupe bu proximité la. groupe bu voix des cent voix la. groupe bu servir askan wi la loolu la ñu bëgg a fësal ci ci bés boobu mm-hmm. ci euh, kàddu yoo fa ne la jëpp incha allah alors ñoo ngi doon wàcc mm. merci temps bi xob nañu peut-être wax quelques mots rek ci apocalypse <laughs> waaw xam nga sànq bi may ñëw sax maa ngi doon euh, préparé wax ci xeex boole am fële ci diggante Russie ak Ukraine. Mhm. ma jàpp ne fi ñu toll nii moom ñu ngi wax waxu defetu Ukraine. Mhm. ba ñoom ci seen biir sax ñu ngi waxtaanee ne seen contre offensive bi ñu lancé woon dootul sotteet yi mhm. euh, li nga xamante ne nii nag ñu bëri duñ ci bàyyi xel dañuy jàpp que ne Russie ak Ukraine bu ñuy xeex. affaire territoire kese la. alors que question bi c'est beaucoup plus profond que ça seen même. une question de civilisation mhm. euh, puisque occidentaux yi jàpp nañu ne ñoom ni ñuy gisee àdduna bi te soo seetloo sax si di ci tontu bi muy tontu noonu mu ngi tontu fukk Fukuyama mhm. euh, bi nga xamante ni xeltukatu euh, américain la mhm. moom mu ngi jàpp ne bu ñu demee ba euh, chute mur de Berlin ba nga xamante ni Union soviétique maanaam URSS tas na léegi monde occidental dootul amati kenn koo xamante ni mu ngi jàmmaarloo ak moom moom mooy domine adduna bi. Mhm. soo seetloo li nga xamante ni moom moo xew Ukraine ak Russie maa ngi naan guerre de civilisation la parce que soo seetloo bu baax euh, occidentaux yi ñoom ni ñuy xalaatee. maanaam jàpp ne lépp capitaliste la war a doon jàpp ne merci yi daanaka amatul lenn loo xamante ne war nañ ko ci indi comme barrière boo euh, xaw ma ndax bàyyi ngeen ci xel ou pas barki dem boo njaay rek loolu euh, la Vladimir Poutine mu ngi wax ne dafa bëgg jigéenu Russie yi dem ba ku nekk di am sax jusqu'à huit Mm-hmm. enfants mm-hmm. mu ngi wax di ne dañu bëgg armée russi jóge ci un million sept cent mille personnes dem ba deux millions deux euh, euh, cent mille mm-hmm. te loolu li ko mën a indi mooy quelque part affaire homosexualité bii nga xamante ni ñu ngi koy wax ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ni occidentaux yi ñoom ñu ngi ko tuddee liberté. Mhm. boo xamante ne ni tey moo war a tax. Mhm. comment dire ñu dugg ci ay considération yoo xamante nii ñoom seen civilisation rek moo ko nangu parce que même fii ñun en Afrique affaire homosexualité ak yeneen ak yeneen xamuñu ko mhm. nekkul ci ñun léegi nag ñoom ñu gis ne seen gis-gis boobu ñoom la ñu war a imposer le du monde le reste du boobu nag Russie daf ci nekk barrage comme Chine nu mu ci nekkee barrage léegi ñoom bu ñu demee ba nga xamante ni ñu ngi bëgg a ëlbati Russie c'est parce que comprendre nañ ne mm. bu ñu bëggee imposer monde bi yëpp yëpp yëpp ba mu daj ñoom seen façon de penser mm-hmm. il faut que Russie kat ñu faagaagal ko te mm-hmm. daanaka ci loolu la ñu nekkoon ci loolu lañu nekk te euh, xeex boobu sax ñuy jàpp ci wàllub euh, taxawaay doomi aadama sit la tamit ci doon xeex bu baax a baax notamment sànq yaa ngi koy wax Oustaz Assane Diouf euh, ci mbiru Palestine je me dernière édition du soir bi nga xam ne def na ko fii te man ma taxawoon fii Moustapha nekkoon fii on parlait de de la cause palestinienne mu yàggoon cee dox yàggoon ci wax bu nekkoon mu ngi dund ba tey yaakaar naa ne dina ci defaat ay jéego yu bari bari bari bari en tout cas il est euh, c'est un homme multidimensionnel boo xam ne pàcc boo ko jël rek am na ci benn part boo xam ne nii waxtaane woon nañu ko ci ba mu yaatu jaajëfale yow tamit euh, xooxaan on la nga dem bi ndax yéen tamit la tënk ci mm. bëccëg <laughs> lundi prochain ñu revenir encore ci euh, diggante Russie ak euh, Ukraine euh, c'est une histoire bu nga xamante ni daf ñu passionné bu baax a baax et que amoon nañ ci ay échos yu bari bari depuis ndorteelu géopolitique bi nga ci doon yaatal peut-être ñu xam mbir mi fan la fan la mujjee yaa defal yéen tamit mbokk ci topp geeg teewlu gi li la woon réveil de ce matin yemoo 4 décembre di anniversaire u décès El Hadji Sidy di président fondateur bu groupe Walfadjri ñu jagleeloon ko en tout cas peut-être